waaw sëñ bi Mbagnick Diop euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jacques de la nuyu di nuyu waa rédaction bi waa rajo bi yëpp. yow yaay njiital mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES nga xamante ne moom mooy organiser at euh, xew-xew bu rëy tey jii la ñu koy amal muy salon des startups ñu koy wooyee tamit Afritech édition bu ren ji ñu koy amal euh, tey ndax mën nga ñëw d'abord ci lan mooy startup ngir ñu ñuy déglu. startup dafay nekk. soit entreprise bu tuuti tuuti ou projet d' entreprise yoo xam ne ay xale yu ndaw ñoo ko bëgg a taxawal wala ñoo ko taxawal loolu la ñuy waxee loolu la ñuy wooyee start-up mais fii Sénégal dañu gis ne start-up yi euh, kenn fayday lu wu leen woon sa xale yi amuñu ay moyens seen xam-xam la ñu am xale yi nag seen xam-xam nàcc ci lépp lu jëm ci numérique dem ci euh, digital ba nga xam ne ne ñu ne xale yi daal bu leen jàppale seen entreprise yi comme ni nga koy gisee Amérique di ko gisee France su may jël exemple France euh, seen salon bi mu tudd Vivatech ba kay euh, Macron di ko taxawal kooku c'est le privé Macron moo ko lancé cinquante millions d'euros la si def mm. euh, cinquante millions d'euros c'est pratiquement vingt cinq milliards de francs CFA léegi euh, patron yi mag yëpp ay ñoom Xavier Nel ñu moom BFM TV def ay cinquante millions cent millions ba tey daal ñoom seen budget mat na cinq cent millions d'euros xam loolu bari na mm-hmm. ñun fii nag bu ma gisee ne xale yi am nañu ay idées am nañu xam-xam ñu ngi bouger ñu ngi yëngatu si la sama xel ñëwee ma ne comme ma def forum du premier emploi na aussi jéem a jàppale ñoo xam ne ne dañu bëgg a lancer wu am ay euh, ay projet futuriste mhm. loolu moo ni salon des startups du ñu ko defee ñaari at ma tuddee ko nag Afritech comme ça mu mën a euh, boot lépp loo xam ne ne ci biir Afrique la nekk mhm. mu nekk dajee bu am solo parce que dañuy invité banques yi invité experts yi invité communicants yi invité aussi ay xale yoo xam ne ne ay xale la ñu mais ñu góorgóorlu ba réussir ci seen euh, ci seen secteur bu ñëw ñoom tamit seede. ne mm-hmm. man kat fii laa dëkkoon maa ngi woon parcelle maa ngi woon yembal amoon sa lu ma nekkee amoon lu ma añee mais lii laa commencé di def nii di góorgóorlu ba tey maa ngi yore ay milliards maa ngi yore lu ma téeméer wala junni employé loolu tamit day gën tax day motiver xale yi ñu xam ne ne mën nga jógee ci ci dara mais yegg si si kaw ci ci boo amee ambition ak euh, audace ak motivation ñu gis ni kon ren ji moo war a nekk juróomeel bi yoon ñu koy def juróomi yoon kon dafay wane ni yàggul mais déjà mu nekk lu fës ci nit ñi ci secteur bi en tout cas salon bi nekk na li nga xamante ne euh, lu incontournable la lan moo waral loolu waaw xam nga duna peut yàlla moo ñu may loolu ah, comme ñu olof di wax ñu wax laf cat quoi yàlla moo ñu lu ñu dugg rek Euh, yàlla may ñu si ndam ñu si sant yàlla bu baax sant sëñ Touba sant suñu ay waajur loolu tey salon bi dangay xool yeneen dëkk yëpp yu nekk à côté muy Guinée di Mali di Côte d'Ivoire di euh, Niger ñoom ñëpp dañuy xool salon bi parce que dafa nekk loo xam ne ni innovation la waaw xam nga innovation mooy lépp loo xam ne dafa jëm si numérique nga taxawal ko xale yi seen xam ne xale yi ñu nekk Sénégal wala ñu nekk feneen ñoom ñëpp euh, dañu am xam-xam ci lu jëmee si loolu donc moo tax salon bi si ñeenti at rek mu wër suñu sous région bi mu naa sa wër Afrique ba xam ne boo génn boo nee Afrique rek ñu xam ne ne c'est le premier salon en Afrique de l'Ouest euh, euh, lépp lu jëm si start-up ndax ci doole nag état bi aussi di suivre ñu ñu gën a tax ñoom ñu xam importance su start-up ba Euh, chef de l'état bi euh, wax gouvernement bi assemblée ñu ñu voté benn loi bu ñu tuddee loi start-up mm-hmm. et décret d'application bi fan yi la war a génn so loolu tamit dina suqali xale yi bu baax a baax a baax mm-hmm. euh, ci même dynamique boobu aussi ministère du chargé affaire numérique bi fexe ne moom tamit ba décroché cent millions de dollars pour loolu rek si côté banque mondiale si cent millions de dollars yi mooy presque soixante milliards de francs CFA amaat na yeneen vingt millions de dollars yoo xam ne dañ ko jagale aussi xale yi rek euh, ñi xam ne ñu yore start-up donc loolu ma dama koy rafetlu ñu kontaan si parce que liggéey bu ñuy liggéey la état bi aussi fekk ñu si xam nañu tey avenir bi mooy xale yi avenir bi mooy start-up avenir bi mooy économie du numérique aujourd'hui c'est ñu ngi nekk si benn volet mooy l'intelligence du savoir léegi affaire comme bu njëkk ba production machine yeeg yooyu yëpp dafa commencé léegi di xew yi donc léegi xam-xam moom mooy addina bi donc moo tax euh, salon bi euh, xale yi bëgg ko mu am succès ba pare ñu ci def lu ñu mën koy def gracieusement pour jàppale xale yi. ci question bu mujj bi président mooy lu ñu mën a xaar tamit ci bëccëg bi tey ji ak programme bi euh, ndax état dina am ñu ko fa teewal tamit. waaw ministre bi bi yore mbirum numérique yi Yankhoba Diattara incha allah moom mooy ñëw ubbi ko mm-hmm. euh, ci wetam aussi ministère de l' emploi secrétaire général bi mooy nekk si wetam mm-hmm. ak man mi ak yenn kilifa yu nu invité ñoo xam ne ñu ñëw pour pour jàpp si aussi mm-hmm. ak comme lu ma la ko waxee sànq ay xale yu ndaw ñoo xam ne ñu ndaw lañu mais yàlla dafa def ñu teel a dugg si domaine bi ba réussir si ñoom tamit dañuy ñëw def ay seede pour motiver xale yi ñu invité banque yi aussi invité. institution financière yi pour xale yi ñëw di participer aussi bëgg accompagnement ñu gis loolu ñun suñu wàllu bopp aussi euh, suñu jury bi euh, xale yi motoon nañu parce euh, presque téeméer ñu doon participer ñett lañ ci lañ ci jël ñett yooyu ku nekk di am prix ba pare am chèque bu mag mhm. donc premier prix bi mu ngi tudd prix du quatre point zéro mooy prix futuriste moom moo ci jëkk ñaari prix bi prix de l'innovation digitale mooy prix de la créativité et de la technologie ñetteelu prix bi mooy prix Optima mooy le prix de la révélation numérique ñeenteel bi nag moom encouragement la mais ñett jëkk yëpp ñoo ci teg chèque pour xale yi ak seen projet yi nga am wala fekkee ne ñu doog a démarrer ñu mën leen gën a jàppale ak chèque bi ñuy jot ñu gën a booster seen entreprise en tout cas daal ñu ngi si sant yàlla bu baax di leen jaajëfe yéen tamit di xaar aussi seen euh, naataango yi ñëw couvrir euh, événement yi parce que événement bu am solo dafa am solo daal. Mhm. promotion forum du premier emploi la daal booy xool. kon mu mel ni lu mooy sax gis-gis mooy visibilité buñ ci am am na tamit ay retombées ngir ñu ci participer yow yaay njiiteel mouvement des entreprises du Sénégal nga xamante ne mooy amal xew-xew bi tey lii di salon startup di Afritech ca King Fahd Palace lay doon jërëjëf kon président Mbagnick Diop. maa ngi lay jaajëfee Jacques di la félicité comme ni ma koy defee chaque jour si liggéey set na rafet na vraiment xale bu professionnel la yàlla na yàlla defal jàmm a travers ta personne aussi maa ngi nuyu rédaction centrale bi yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi xëy si rajo bi rek dina wax ngeen góorgóorlu rek àddina moom noonu rek la liggéey rek la li ñuy def yëpp liggéey parce que mënoon nañ si bañ a fekk ñun tamit mhm. am nañ yeneen soxla mais dañu bàyyi soxla yëpp di liggéey pour dëkk bi di liggéey pour suñu doom yi suñu sët yi suñu mhm. loolu moom solo daal. jërëjëf en tout ñu ngi lay gërëm bu baax a baax merci.